Salut les amis de eSport TV et de Baba Show, guys. Merci encore chaque fois hein, qui confiance renouvelée bi. Merci li di like mais aussi guys merci ngeen way di gën abonné la famille de eSport TV et de Baba Show mbokki sénégalais qui ci Sénégal ruq diaspora ñu ngi di

Boulaye Boulaye Dia nga actuellement dans mi ngi woné côté de l'Italie wax également ci ki di Pape mi di Idrissa Gana Gueye ci lan nañu day leer wax également ci euh, ki di euh, Pep Guardiola li wax ci ak aussi Marquinhos sur Rabiot pendant ce temps je maillot ce troisième maillot bu wa FC Barcelone mo nek ah. donc ngeen gis maillot ah, présenté par de joueurs du club Ben gis ngeen am ci maillot bi gars ban ci am donc les supporters barcelonais ak ñeneen Rodri le joueur espagnol de Manchester City moom nag nee na actuellement daal euh, ballon d'or bu ko mënee jël dina nekk rêve ne nag nit ñi ñu ngi koy topp di ko wax ah ne ko mogoog te gis nañu aussi léegi footballu milieu de terrain bi gars yi ñu ngi a apprécier rôle milieu de terrain donc mu ne on ne sait jamais peut-être que dina ko jël mais daal mi ngi ko ah dafa ci xalaat dafa ci xelam torop kii nag di Guardiola nee nag allant quatre matchs mu dugal neuf bi mu ne benn match moo ko desee pour mu daal di ñëw atteindre sama record maanaam moom mi daal di tolloog moom loolu la wax pendant ce temps Marquinhos tay conférence de presse d'avant match pour Ligue des champions bi gars dañ ko laaj ne ko nan nga gisee ñëw euh, kii di du côté de Marseille Mon ne non comment hein, sans commentaire du ci wax bo gissé kanam dafa tej kanam gi parce que aussi ab voilà Paris Saint-Germain marché xam ngeen ni fa démé euh, mogo ki nak di Joshua Kimmich euh, président bu Bayern Munich nee na Kimmich lañ bëgg mu nekk image Bayern Munich nekk le futur capitaine hein, de cette équipe mogo parce que xam nga ne moom il est pas le capitaine désigné yenn match nak da koy nekk et que neen pour loolu nag fa mu di prolongé contrat Anthony Mondal, bi nga Anthony donc il veut faire ses preuves pour également woné Dani Ceballos le joueur du Real Madrid mom nak fi eh, janvier du côté de la Casablanca ñaari club Real Betis également AC Milan. Allez Albertine, on boo fa un ancien club hein donc mogok goog foofu ak Milan c'est ñoo nekk di la Ligue des champions gars démarre officiellement aujourd'hui avec les grandes des équipes nek match yo xam gars yi ma goog ah, ñu bëri pour la première fois expérience bu bees ak style bi ñu défé li de Ligue des champions bi donc on attend beaucoup de matchs beaucoup de surprises également beaucoup de rebondissements et du beau jeu on l'espère Marca mon ci yeneen kaayam gu njëkk xëtam la BMW à l'assalto de Europa mu la BMW à l'assaut de l'Europe wax ci BMV mooy Bellingham Mbappé Vinicius Junior waa Real Madrid mais nag Rodrigo da ngeen ko si waroon boole waroon ngeen ci bolé Rodrigo parce que mom c'est un élément clé Ligue des champions également gay hein ah, ñi nga xamné moy histoire Ligue des champions ñi ëppalé lu ñu def ci dribble réussi ci ben match Ligue des champions Javier Zanetti de monex ci kaw am 16 ci 3 minutes 4 secondes le ref def tu ci Lionel Messi Hazard Neymar hein ah, mo gok Neymar diggante Barça Brésil def nako Pape Alassane neex gauche magique mu def football Gueye gis ko num def pour topodo Idrissa Gana gay mais plus que ça dafa demone Makatal Moukaram Pape Gueye maintenant habitué de la du pèlerinage à la Mecque comme Idrissa Gana gay mo gok ah, donc Mongolé, lay Guèyeen il était parti avec toute sa famille par frère mi la dem mais aussi Boulay Boulé Dia l'homme en forme laf cat laf cat de la Serie A en début de saison moom lañ tab dee mu nekk man of the match bon gis ngeen ko ay statistiques am actuellement Lazio ñoom satisfaire nañ ci recul am ne nañ recul boo xam ne je pense que mi on espère que il sera sur cette bonne dynamique plus sur le pour di koy sori trois matchs quatre buts hein toute compétition confondue avec la Lazio de Rome Boulaye Boulaye qui est sur une bonne dynamique le joueur sénégalais bien évidemment donc euh, bi on a besoin de lui également en équipe nationale les amis li moo nekkoon information ñun bëggoon c'est toujours un plaisir de vous servir ouais leen di like ouais leen di abonné on avance ensemble dans la magie de babo Show et de eSport TV su barre tiens le bonheur jaa ngeen jëf.